mel na ni am na ci loo xam ne xalifa sàll fàttali na ko booba jamono maa ngi doon wax ne am na ñoo xam ne waroon nañ mën a bokk ci élection te bokkuñu ci woon euh, war nañoo fexe kon ba élection bii di ñëw ñu mën ci bokk waxoon nañu aussi ci wàllu liberté yi et cetera bon euh, am réew daal bu njëkk bala poudre koy joxe dangay toj réew mi ñii dee ñii damm ñii daw ña fa des nga yilif leen ba keneen ëpp la dool ñëw toj réew ma yilif ko muy woye noonu léegi nag dañuy wote bu jant soye ñu wàññi ku ëpp la toog moo ëpp yërmande defe naa ne euh, élection dafa am solo parce que c'est la procédure de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir suñu mànkoo ci règle yi rek réew mi dina mën a dal euh, réew mi nag xaw naa jaxasoo mais man jàpp naa ne euh, yow président yaay responsable de affaire bi nu mu mënti demee moom dañ naan yow a parce que sécurité ak stabilité ak paix yow yaa ko yor ci Sénégal j'espère que di ko assumer jusqu'au bout assumer bi nag évidemment bari na ay dimension euh, élection euh, dialogue bi daaw daaw jéeg pare woon na presque yaakaar naa ne mën na bañ a yàgg commission yi bu ci nekk toll woon na ci def rapport final kon defe naa bu ñu toogee finaliser euh, mbir yooyu réactualiser ci commission politique li ñu war a waxtaane je crois que mën na bañ a yàgg te mën na efficace te mën na joxe résultat yaa ngi fàttaliku bi ma ñëwee fii maa wax bay dem dikkaat daal di ne eh am na bu ma fàtte woon de troisième mandat après ma ne la mais duma ma ci wax dara mbax ndax yow ci sa bopp tontu nga ca léegi nee nga nañ ko waxtaane euh, man defe naa ne mën nañ ko waxtaane waaye daal problème bi defe naa man mën nañu accuser gouvernement président de la république mën nañoo accuser opposition waaye Sénégal yépp ñu ku nekk fii toog am na noo war a seete sa bopp Et si on ne règle pas ce problème la on ne s'en sortira pas. parce que ku nekk jàpp nga ne problème bi ña ca des waaye du yow waaw ah, loolu suñ ko doxalee noonu nu muy dem fàttali naa bërki démb ab télévision xaw ma ban la dañoo filmer benn waay muy tuur ndox ci mbedd mi ba pare ñu kar ko fële ne ko sawaay affaire yi noo xamee ñooñu ñiy tuur ndox ci mbedd mi mu xaacu du yoon du dëgg Sénégal nangam nangam nangam te sànq rek def na ko alors ça ça ça ça je pense que war nañ koo waxtaane maa ngi leen di gërëm di leen sant